koy faye ko waaw waaw bu ëllëgee nag sa émission bii waaw yàlla mën la ci jox tiyaaba yoo xam ne mën nga yóbbaale ñu bari te doo ko yëg parce que émission bi nga def tey muy héritage waaw bu ma doon tuddee bu ma doon tuddee matière u diine yi moom laay tuddee le messie des matières d'accord na léegi oustaz takkum suuf ba tey li may wax rek yéen yéen ñuy jàngal waaye da ngeen ñoo sonal dëgg la xel yii sonal ngeen ko mhm. parce que dootoo xam koy gëm mhm. am na ñoo xam ni comme oustaz yu mel ni yow nee nañ takkum suuf dafa xaraam c'est interdit par l'islam am na ñoo xam ne takku suuf dagan na mhm. oustaz man de gëm naa la dëgg la lan moo lan moo ci am lan man maa la seetaan waaw bëgguma sax tudd tur uh-huh. waxuma ko pour ndama waxuma ko pour dara mhm. mais cheikh man convaincre ma ci diine yombul mhm. billahi lazi la ilaha illa huwa xam nga nee naa la borom xam-xama mën a étudier borom xam-xam ni kii am na xam-xam dëgg la mais yow même boo convaincrewul nit di nga dugal ni rubba mhm. parce que da ngay dugal foo xam ni daa la ko wax moom day am problème bu tegul argument yi waaw loolu moom sama liggéey mhm. takk suuf mhm. cheikh ñi ko xaraamal am nañu version bu wér ñi ko daganal am nañ version bu wér. waaw ah, parce que xam nga loolu xaaral ma ñaari version yëpp. ñaari version yëpp a ñëw parce que Cheikh. gis nga diine dafa am ñoo xam ne ñoom la ñuy tuddee mazahibul arbaa les quatre écoles. waaw imam Malik. waaw imam Shafi'i. Uh-huh. Hanbal Abu Hanifa. Uh-huh. am ñoo xam dañ leen tuddee jumhurul fuqaha. Uh. li ëpp ci ay borom xam-xam yoo xam ne dañu maîtriser wàllu sharia. waaw boo ñëwee ci takk suuf. waaw imam Malik. waaw moom. Uh-huh. nee na. takk suuf aram na. araam na nikaas nika nikaaxu siri araam na. te ñun imaam Malik ngiru imaam Malik. waaw léegi nag am na fu mu am na fu mu waxee ni. dañ koy bàyyi mu continuer. Mhm. moom laa la bëgg a leeral. ñëwal takku suuf imaam Malik nee na araam na. Mhm. mais bu fekkee takk suuf bi dañ koo takk. Mm. te siwaluñ ko. ah <laughs> ko siwal. yaa ngi dégg. Mhm. ñoom ñaar ñi nga xam ni dañoo waxtaan ba juboo pour nëbb ko. Mm. wala kenn ki ni nañ ko nëbb ndax bëgguma waa Cees yëg ko mhm. ñu fexe ba takk ko mhm. bu ñu yëgee ni takk nañ takk suuf bi dañ koy firi ba pare dóor leen téeméeri yar comme ñi ñuy dóori ko njaaloo kon kenn waru koo yëg warutu senn wax ji bu xësee ba senn waaw ña ko fekke dañ leen di punir dañ leen di duma kon bu sennee rek njaaloo am na bu njaaloo amu fa ah bu dee dañ leen doon téeméer yar kon bu wax ji seen la ñu tuddee wayo xaddu zina dañ leen di ci loolu parce que xam nañ ni li ñuy def dañ ko dañ teguñ ko ci yoon léegi imam Malik daal di wax ni bu fekkee bàyyi nañ leen sëy bi continuer ba mu am trois ans cheikh hmm. képp ku takk takk suuf bu amee ñetti at hmm. kenn amatul droit firi sëy bi dañ koy bàyyi mu continuer ah compliqué na nag kon nag ñetti at yi tamit ñetti at yi sëy bi bu nëbboo ba am ñetti at mais moom mu suuf xaraam na ba pare mu ne may nañ la ñetti at imam Malik loolu lay indi imam Malik nee na takk suuf araam na mais bu dee takk bi jotuñ koo yëg ba mu am ñetti at boobaa dañuy bàyyi takk suuf bi continuer fu wér laa ko teg muy benn kon ñi naan araam na nañu wax ban contexte la ko imam Malik araamale kon da ngay dégg ni takk suuf bi bu feeñul fii ak un an waaw feeñul fii ak deux ans waaw feeñul fii trois ans valable am na trois ans valable na dañ koy bay mu continuer mais bu fekkee valable ci diggante trois ans yi kon njaaloo la kon njaaloo nañu trois ans muy doog a muy doog a kii diggante boobu effectivement njaaloo la parce que da ngeen da ngeen a da ngeen a da ngeen def lu xaraam da ngeen a teggi yoonu sharia ci imam moo tax imam Malik ñu wax ni ñoom way way yuxaaqab ash-shaahidaani ñu ko fekkee sax am nañ ci bàkkaar loolu la Malik wax xam nga Malik moom daa tànk mm-hmm. léegi nag ma indi la jumhurul fuqaha mooy mooy ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu fiq ñoom nee nañ takk suuf xaraamul waaw dañ ko siib mm-hmm. ñu ne parce que différence su sëy bu ñu takk ci yoon ak sëy bu ñu nëbb seen différence mooy siwal <laughs> sëy bee nag dañ koo siwalul rek. waaw waaye valable na. parce que boo xoolee condition bi takk sëy bee. moo takk sëy bii ñaari condition mooy takk say al wali al ishhad ah. kilifa. Ah. seede. Ah. comme takk nañ fee am na kilifa am na seede. bu ñu demee ci sëy bee am na kilifa am na seede. bee wér na. bii wér na. maa ngi ci bee de ñaari version yëpp laa indi. maa ngi ci bee a tànn nag. man de maa ngi ci bu mujj bii. moo tax ma lay wax ni. non parce que nag euh, euh, kilifa gi. nan la ñu takkee du alxayri alxayri gi. lépp loo xam ni sëy bi am na ko. waaw takk suuf bi am na ko ah waaw jumhurul fuqaha daal di wax quatre vingt dix pour cent ci borom xam-xam validé nañ takk suuf. waaw imaam Malik moo ko bañ. waaw. léegi nag bañ ko. imaam moom daf lépp ci sharia la koy teg nas. am te imaam Malik bul fàtte ni moo doon firi alquran ci jumaay euh, màq ma Madina yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba pare di borom xam-xam jàngal imam Shafi'i oh, mais oh. Shafi'i def ko ëpp lu mu def découverte ñiy commenté texte xadis dañuy liir ci kaw bàyyi ci suuf cheikh mais bu Shafi'i bi bu Shafi'i bii lu wér la yaru na maanaa lu wér imam Shafi'i nag bu fekkee suñu borom nee na xel laa leen jox Shafi'i yu moomu pour ngeen di xalaat bu ñu ay mala lañu Shafi'i yu sax moo doon loo doom boo xam ne doomu jaalo la doomu njaalo day doon pourtant bëggoon naa la ko laaj sànq ma fàtte ko doomu judduwul ci yoon imam Malik moo ko dàq waaw alxuraan da koo dàq waaw xadis dàq ko waaw mais imam Shafi ko parce que doom ji yoonam ci imam Shafi dàq ko il n'est pas demandé mais ci mazhab imam Malik waaw imam Malik moo ko dàq ñi dul doon ci miraas juróom benn lañ nañ ko leb ba beneen yoon ma indil la ko waaw kay waaw juróom benn rek ci dul doon wax ma ko gaaw rek wax ma ko ma gaaw ko bi ci njëkk waaw euh, xadamul istam mooy ki nga xam ne kii juddu te innaalewul bakkan du doon. ah waaw ñaareel ba. waaw ñaar ñi ànd di def voyage. waaw deewandoo ci même choc. waaw kenn du doon sa morom. waaw laam nga allixaan waaw ki nga xam ni dafa rëbb jabaram ni ko sa ëmb bi du man sama xel tee na ci dañuy tas sëy bi jël doom ji yégal ko ci ndey ji dàq ko ci baay gi waaw kaaf gi kaafir ki nga xam ni bokkoo leen diine doo leen doon nante ré gi nekk rek jaam amatul zé gi nekk wala du zina doom bi nga xam ni judduwul ci yoon ci mazhab imam Malik xaaf gi nekk alxatul xam de ki nga rey te tay ko ngir yàqamte ndono bi. Hmm. juróom-ñaar yi moom la ñu tuddee mawaanixil irsi dañ leen a dàq ci héritage. d' accord na léegi kon léegi takkum suuf bi moom. jox naa la ci ñaari version ku nekk rek no yaay xool version bala arrangé nga jël ko mhm. waaw parce que tamit version yi bari na. dëgg tey Ahmed Khalifa Niass sax wax na fi ne ñaar sax ñii mën ngeen toog maye seen bopp xam nga parce tey